chers téléspectateurs de la 7TV amaat mbégte ak contenté di la 7TV émission avocat émission bi nga xam ne moom mooy traiter les questions juridiques les cas mais aussi l' actualité de manière générale tey nag ñu bëgg ñëwaat un peu ci li nga xam ne mooy les élections de représentativité des centrales syndicales nga xam ne amoon na fi il y deux semaines actuellement ngi xaarandi li nga xam ne mooy les résultats définitifs mais nag am na ay yoo xam ne ñoom ñoo dégagé ak li nga xam ne provisoire yi tey nag ci dalal ki nga xam ne mooy Mody Lo secrétaire général de la CNTS en confédération nationale des travailleurs du Sénégal nga xam ne ñoom candidat la ñoon ci seen propre réélection ci li xam ne mooy centrale syndicale moom la ñuy dalal et ñu ngi lay nuyu la bàyyi euh, ñoo ngi lay fay di nuyu ñuy seetaan ñëpp di jiital ci nuyooyu sunu camarades travailleuses ak travailleurs yi yëpp Sénégal Euh, particulièrement ñi nga xam ñu ngi bokk ci confédération nationale des travailleurs du Sénégal nuyu suñu mbokk yëpp ñu Sénégal yëpp ñu seetaan di leen nuyu di leen gërëm ci seen euh, teewaay di leen yóbbanti nuyoo aussi si seen euh, directrice may Ndour yal na ko yàlla dafa leen jàmm leen souhaité bonne fête di profité ci at aussi bi ñëw mu nekk atum naataange atum wér atum boo xam ne yokkute mucc ak mucc la jàmm ak xéewal biir Sénégal. merci beaucoup SG ñaan yi ñaan yi am solo bu baax a baax ñu ngi gis ne donc il y a de représentativité des centrales moom nag benn taux participation boo xam ne dafa xaw a faible ci li nga xam ne moom la ñu moom la ñu jox certains ñu ngi naan vraiment na manque moo ci li nga xam bi d'autres ne les travailleurs dañoo xaw a abandonné aussi les syndicalistes yéen nan ngeen ko jàngatee. waaw man je pense que ni élection yi li ci am solo mooy def nañ ko ci jàmm ak salaam son sunu borom ba nga xam ne syndicat def nañ ko amuñu ci xeexuñu seen biir saagantewuñu mais aussi xeexuñu en tout cas loolu lañu def na dans la paix quoi beneen bi mooy li nga am na solo mooy taux bi nga xam ne bi participation bi dafa faible trop li ko waral nag mën na bëri parce que tey élection yi ameewul le plus souvent ci lieu de travail yi yëpp liggéey maanaam liggéeykat yi jour ouvrable la euh, am na aussi conditions yi ñuy laaj benn bi mooy foog ñu mën la identifier sa carte d'identité foog nga figurer ci liste yi euh, foog nga indi euh, kii bulletin de salaire et cetera et beneen bi mooy organisation bi polarisation bi am na loo xam ne par exemple am na liggéeykat yoo xam ne seen bulletin de salaire moom duñ ko wane seen soxna sax du ko gis astum ak ñi si góor ñi seen soxna duñ seen bulletin de salaire duñ ko wane kon nag xam nga c'est un frein pour certains bëgguñu woote parce que duñu wane seen bulletin de salaire beneen bi mooy polarisation bi ñenn ñi dañu bëgg woote duñ xam ba ñuy woote euh, ak tayal bi si da ciy am donc du parce que nit ñi dañu may santar wala dañ bañ a kenn ba aussi am na aussi Euh, ci presse bi aussi euh, plateau yi boo dégloo dañuy diaboliser centrale yi amul njëriñ nangam nangam bon loolu lépp mën na jouer ci psychologie liggéeykat yi ñu xamul mais l'un dans l'autre def nañu ko am nañ yaakaar xëy si daañu def évaluation bi pour xam la nga xam ni moom mi en tout cas am na beaucoup de euh, nu mu tëddee de manquement yoo xam ne not nañ ko ci organisation bi jéem nañ ko corriger aussi Euh, ak préfet yi ak euh, ministère du travail ci ñu mën mais euh, xam nañ daal lu aussi am na ci gàllankoor. am na ci gàllankoor par exemple presse bu fekkee ni dañuy da nga war a vote fii ñu ne doo vote fële ngay dem nit ñi bu ñu amul permission surtout dans le secteur privé ñu dem vote ji parce que duñ bàyyi seen liggéey te amuñ permis parce que secteur privé du secteur public te ñun suñu force si secteur privé bi la nekk waaw donc loolu aussi. d'autant bëri yoo xam ne donc au lieu ñu déclarer li nga xam ne mooy seen i déclarer wuñu donc ñi nga xam ne moom la am ci ay travailleurs loolu dafa waaw am na am ni d' abord am déposé wu sax seen ay liste bëri na euh, parce que tey rek période de de réclamation bi ñun rek def nañ lu war ma cent soixante dix euh, entreprises ñu recensé yoo xam ne dugg am na ñuy dugg am na duggul bon am na ñoo xam ne déposé wu sax seen i liste liggéeykat. am na ñoo xam ne ñi dañu am tuuti liggéeykat permanent am junniy liggéeykat journalier wala ay saisonnier loolu aussi gis nañ ni travail permanent yi lañ dugal ñeneen ñi dugaluñu leen kon yooyu yëpp gis nañ ko daal am ay imperfection yu bëri yu ñu noté xëy na bu fekkee ne dañuy def évaluation yëpp daañu tirer les les leçons mën a xool nan lañ koy corriger ak administration bi ak yeneen central yi parce que xëy na du ñuul rek. la impacté mën na impacté aussi yeneen centrales yi mais donc euh, mais li am daal am na ba pare. am na am na ba noppi mais bu ñu ñëwaatee ba ci ci entreprise yi donc dañ naan vraiment entreprise yi pourquoi déclaré wuñ li nga xam ne moo lay travailleur parce que condition de travail yeeg yeneen ak yeneen ak yeneen yëpp topp donc pour bañ vraiment affaire boobu noonu génn donc ñun ñëpp xam ko moo tax. entreprise yi aussi déclaré wu ñu travailleurs yi loolu tam mu nekk benn yoo xam ne les syndicalistes war nañ mën a taxaw ci li ñu bien sûr xam nga ni am na du loolu sax parce que du loolu rek xam nga entreprise bu fekkee déclaré nga say effectif day wane réellement sa carte d'identité alors bu fekkee nag ñi nga ñi nga ñi nga yoone déclaré du ñoom ngay cotiser loolu day mel ni am na loo xam ne li jaarul yoon te entreprise yu bëri loolu moo tax du ñu bëgg wax dëgg-dëgg ci nan lañu toogee parce que aussi élection pour ministère du travail bi critères yenn yi mu dugal Euh, daf ko ci def du pour ñun waaye moom pour ay statistiques am moo tax mu def ko mais bu buñ gisee manquement yi am foog naa ne même ministère du war na xool beneen formule bu gën parce que lii du tax statistiques yi ñu joxe mu def de statistique fiable donc loolu aussi war nañ ko mën a analyser parce que yenn gàllankoor yi gis nañ ko euh, comportement yenn chef d' entreprise aussi gis nañ ko beneen bo aussi muy ñun muy peut-être administration mu y a pas une bonne une grande publicité xam nga bu seen élection yi la passé da doon am toujours spot yu doon génn ci télé yi ci rajo yi nit ñi di wax fii ministère bi di communiquer ak attirer nit ñi surtout pour ñuy mais ren la dimension politique pratiquement moo moo moo moo contexte politique bi dama fi yaakaar ne moo xaw muur li nga xam ne li mooy élection sociale ba ñu focaliser wuñ ci trop donc war nañ xool aussi loolu aussi ñu ñu analyser ko bu baax. mi ngi diaboliser les les centrales syndicales mais aussi bu ñu bu ñu xoolaatee bu baax a baax daal def constat bi donc daf mel ne daf koy xaw a aussi travailleurs yi aussi ci problème yi nga xam ne moom la ñu nekk même am nañu ay avancées xam ne jàpp nañu ko ci wàllum liggéey y a aussi des problèmes qui restent est ce que loolu tamit taxul ne vraiment donc travailleurs yi jugé nécessaire ne pas nga centrale yi soo jëlee par exemple ñun sunu centrale xam nga ñun aussi am nañ ay indicateurs indicateurs yi am mooy. parce centrale bi mooy ñi affilié ci moom mooy ñi bokk ci moom euh, suñu xoolee suñu indicateur ñun suñu centrale dafa yokk wàcceeku wàññeeku benn yoon suñuy affilié dañuy yokk wàññeekuñu donc duñ ko jëlee noonu euh, beneen bi mooy ñi jugé centrale yi xamuñ centrale xamuñ sax duñ xam structuration syndicale nu muy fonctionner beneen bi ni ñu jugé rek mooy ku ci nekk aussi ak euh, niveau niveau d'appréciation day wute xam nga centrale bi par exemple rôle du jël place délégué bi ci biir entreprise parce que entreprise bi délégué bi am na décret bi ñu wax décret 67 360 moo koy protéger bi ñu ko falee am na protection parce que moo yore baatu liggéeykat bi ci suuf ci biir entreprise bi donc mooy porter revendication dem ci chef d'entreprise am ñafe ak ñi ko nekkal ci base fekkee am na télé nag mu ñëwee syndicat national bi mu bokk maanaam bu dee yéen journaliste Synpics la numéro 7 TV bu dee am na syndicat yi fa nekk ñoom ñoo war a commencé di ñafe ci biir su amee jafe-jafe ñu rabattre ci seen syndicat national mooy Synpics Synpics autonome la mais bu doon dafa bokk léegi benn centre après bu tële te bu amee jafe-jafe koy def centre jàpp ci seet nan la leen jàppale nan leen di gunge nan la leen di taxawee nan la di nan lay ànd ak ñoom ba seen revendication bi antu maanaam ba mu trouver solution ay niveau la waaye souvent nit ki day dem ci entreprise rek ne centrale bi syndicat yi syndicat yi loolu incompréhension la boo xam malheureusement dañ koy dañ koy gis ah, ci di homme de médias yi ci ci ci yéen ñi nga xam ne yéen a yore média yi quelque part du ngeen xam euh, la la structuration des syndicats ku ci nekk ban responsabilité nga am parce que tey central moo digg rek mënul jóg rek ne tëmbax ci biir kër jàmbur ne dafay régler lu mu fay régler ñi fa nekk ñoo ko war a indi mu mun a taxaw ak ñoom ñi nga xam ne ñu ngi indi palo ñu ngi ànd ak ñoom ah wax dëgg yàlla ñoom xam nañu ñun xam nañu quelque fois nag euh, responsable bi du nekk ci bi naan maa def lii maa def lii wala maa gunge lii mais ñi nga xam ne loolu ngay def am na nag li nga xam revendication d' général la maanaam bu dee yokk salaire yi. yokk SMIC bi wax ci affaire logement yi wax ci affaire euh, location yi wax ci affaire impôt yi yooyu dafa nekk yoo xam ne central dañ koy porter parce que d'ordre général di ko xeex ak yeneen ak yeneen waa droit droit yi nga xam ne ñu ngi koy nërmal euh, précarité bi maanaam nga xam ne dañuy abusé ci liggéeykat yi nga xam ne dañuy jël ay journalier indéfiniment ñi nga xam ne dañ leen jël ay contrat durée déterminé yu dul jeex comme ni Sonatel di ko defee dañuy renouveler rek waaye duñ jël. ay duñ duñ duñ leen duñ leen dugg à ah, durée indéterminée. ba tey problème yooyu ñu ngi mën moo tax ñu ngi. waaw même même bu amee y a des niveaux donc dinañ déggu ne même niveau yëpp benn combat ngeen am maanaam dimbali li nga xam ne mooy travailleur ci li nga xam ne moom la nekk. non les problèmes sont toujours là précarité bi mi ngi fii salaire yi mi ngi fii problème yaa ngi fii donc est-ce que tamit loolu impacté wu doon. non day impacté bien sûr day impacté mais comme ni ma la ko waxee xam nga. bëre moom nit ki wolof ma naan pesum kanam borom a koy fajal boppam xam nga ne mënuloo ñëw ñu lay pes rek ngay dégg sa lex rek ñu lay pes ba pare nga ne waaye ñëwul jàppale ko dafa am nooy defar à la base donc loolu la ñuy wax liggéeykat yi aussi à la base il faut ñu ñu ñu organiser wu il faut ñu nangu aussi bëri tuuti il faut ñu xeex centrale yi door a ñëw waaye centrale yi mënuñoo jël seen xeex ñoom mbëb mbubboo c'est pas possible. est-ce conjoncture la xam nga euh, boo jiitee ay nit da leen jiite aussi ak xel doo leen jiite n'importe quoi bëgg rek nit ñi ñëw ci yow aussi lu tax nga dig leen lu mënul nekk. mënoo assumer seen responsabilité ñoom ku ci nekk ak niveau la de responsabilité la yow sa responsable na ko assumer waaye ñoom aussi nga won leen nan la ñu war a tax donc c'est la formation liggéeykat à la base da nga leen war a former ñu jot seen baat ñu xam. fan la ñuy teg seen tànk parce que aussi boo defee populisme wala nga def démagogie bëgg ni nekk ci yow rek bu ñu defee li ñu warul def aussi da ngay créer ay situation yu jafe ci ñoom bon beneen bi mooy tey aussi boo xoolee environnement économique bi euh, dafay jouer ci ci liggéeykat yi ndax li nga xam ne ki nit ki da koy bañ facilement ngi ci keneen ko war na loolu yëpp day nekk day impacter effectivement mouvement syndical mais fépp koo xam ne liggéeykat yi nekk nañ benn dànk dëgër foofu résultat day feeñ allah kulli leen kooku moom day day feeñ moom waaye nag loolu nag euh, yombul yombul parce que foo xam ne fi nit ñu ngi jéem a dëgër dina am toujours te patron yi aussi dañ koy def ñeneen dañ koy def mais dañ xaajaloo bon moo dal central yi aussi parce que tey boo amee vingt central syndical euh, ku nekk naan man maa nii maa nii maa ne il est évident que day impacter l'efficacité de la syndicale sur le terrain alors que mouvement syndical force am dafa nekk ci unité dafa nekk ci mobilisation dafa nekk ci solidarité bu fekkee solidarité unité boobu wàññeeku na de impacter aussi sur le mouvement syndical dans son ensemble aussi bien dans l'entreprise au niveau de la filière de des des syndicats professionnels qu'au niveau des centrales syndicales. mais est-ce que jotul SG ñu ñu xeex aussi le patronat doole bi mu am ci ci aussi bëri na surtout dans le dans le privé peut avancer un peu mais parce que yaa ngi koy wax pour ñu syndiquer wu sax dans certains privés c'est très très compliqué aussi. non xam nga boo ne dañu xeex patronat bi du xeex patronat collaborateur la partenaire la. partenaire la oui. buy défendre ay intérêt le patron dafay investir créer entreprise am bëgg def am wut rentabilité du wut ay bénéfices liggéeykat bi day ñëw pour liggéey daan dooleem am lu mu sutura yom yóbbu kër ñaar ñooñu dañuy dëkk waaye bu ñuy dëkk aussi. ñaari intérêt yoo xam ne dañuy fokkaloo patron day gën a tibb bëgg la gën a tibb liggéeykat bi di bëgg am lu yomb këram su liggéeykat bi nag patron bi souvent su fekkee gis na ci moom faiblesse boo xam ne amul organisation maanaam xamul yoon xamul droit wala du respect day gën rek di ko noot mais bu gisee foofu organisation bu fa nekk délégué am taxawaay xam li ñu war da xam fu war a teg seen tànk ñu mën a teg wax revendiquer ni ñu ko war a revendiquer su jaarul yoon yóbbu ko ci yoon patron boobu day def attention day jox àqam liggéeykat da koy respecté bàyyi respecté respecté ko ba pare di ko jox àqam ak loolu moo war a nekk. buñ ko bu amul nag bu amul nag toujours patron bi day abusé. day abusé parce que day abusé ci la nga xam ignorance bi nga xam li wala manque d' organisation d' organisation boobu ñun nag ci la bokk mooy liggéeykat bi. su fekkee gis ngeen fi ñu nekk te ci yow lañu bokk parce que moo dem aussi liggéeykat bu nekkul ci yow mais bu dee ci yow la bokk da nga koy tete da nga koy organiser renforcer capacité mu xam fu mu war a teg tànkam parce que boo ko boo ko renforcer ay capacité am bomb lay nekk danger pour moom ci boppam danger la pour morom yi ko wóolu def ko dirigeant mais danger la aussi pour société donc formation bi éducation euh, ouvrière bi ñu leen di jox formation bi leen jox c'est extrêmement important pour que mu mën a xam nu mu tax beneen mooy ñu xam lan mooy organisation ñu former leen aussi ci li organisation syndicat nan la nan ngay def nan ngay fonctionner nan ngay corriger et cetera et loolu suñu responsabilité ñoo ko mën def moyen la aussi yoo xam ne ñu wuru def ko yëpp du dajaloo nag parce que euh, da wax sànq lu am solo administration ak privé xam nga en matière de boo xoolee administration bi ni muy doxee xam nga ne bokkul ak privé yow fi nga nekk entreprise privée la da ngay ñëw heure ci heure munoo absenté nu mu la neexee munoo def loola neex munoo def est-ce si boo gréé duñ la fay dëgg lu dëgg et cetera et cetera fële quelquefois day am différence da nga xam ne lu demee noonu sanction yi du noonu lay ñëwee procédure duñu benn donc beneen bi. benn patron la ñu am c'est l'état benn patron fonctionnaire bi boo waxee état benn patron la am mooy état fonction publique bi trésor boo nekk privé c'est mille patrons parce que patron bu nekk ak këram ak i liggéeykatam ak ay règlement am ak ni muy gérer ak fonctionnement am donc foofu la problème bi gën a bëree donc cohérence bi mën am harmonie bi mu am entre liggéeykat yi ni ngi leen doxal dans le secteur privé c'est totalement différent parce que fële mooy gën a yomb organiser que parce que fee ku ci nekk ak si secteur te secteur yi aussi c'est milliers de de diversité bi foofu la ëpp ëppee. ñëw yaa ngi ñëw un peu ci li nga xam ne mooy un peu un peu public bi beeg privé bi mais dañoo gisee aussi tam ci lors des lors des élections donc am na de centrales. Euh, syndicat yoo xam ne dañoo bénéficier ci li nga xam ne mooy consigne de zone ci li nga xam ne mooy euh, lu mel ni les les centrales syndicat autonome de l'enseigne de l'enseignement donc gis nañ aussi yeneen centrales yoo xam ne ñu woon ci jongante bi ñu ñu ñu dévoué li ñu mel ni c'est pas c'est pas xam ngi naan centrale autonome c'est des syndicats autonomes parce que ñoom duñu centrale ay syndicats professionnels lañ mmh. autonome et c'est plutôt des syndicats de l'enseignement euh, moyen secondaire waaw SAEMS CUSEMS waaw ñoo essentiel parce que ñoom ñoo mooy syndicat yi ëpp doole effectivement ñoo négocier nañ yenn am na centrale yu négocier ak syndicat autonome ñu jàppale leen waaw pour au moins ñu mun a jóg tuuti c'est pas démocratique dafa biaisé xam ne non xam nga on est di ngay accepter aussi le jeu démocratique xam nga euh, jongante jongante ku nekk ak say feem yow am na valeur yoo gëm keneen am na yeneen valeur comprendre loolu mën naa man par exemple am na ñoo xam ne bind nañu euh, élection yi la passé mais bu ngeen béy ñu jàppale leen waaye lii ngeen ñuy def lii ngeen ñuy jox bu ngeen amee lii am lii man valeur yooyu man dama am ay valeur bañ ma waxee dama ne du ma dugg ci loolu waaw du ma du ma demee ci noonu ko xëy nag élection yi am na ñoo xam ne jaral nañ leen ko mën nañ ko def mais ñun en tout cas dugg ñu ci formule boobu dañ dem rek ak li ñu am yaakaar ni moom la ñu war a demee nit ki booy dem ak moom da ngay dem euh, contrepartie donc euh, mais ñun dugguñu ci formule boobu ils ont bénéficié du soutien de ces syndicats autonomes bon ah il faut faire avec bu beneen bu beneen bu beneen buñ su sañoon ñu buñ buñ sañoon dugg ci biir centrale yi bokk di nekk ci biir central yi mais loolu loolu nag décision organisation yi la mais mënuñ mënuñ ñu malgré loolu am na yàlla def na ñu ngi ci kanam parce xëy na Euh, ñu bëri yaakaaroon nañ avec tout ça synthèse dana dana nërmeelu parce que comme ñenn ñi niñ ko waxee am na ñu ne ñun suñu objectif mooy jël place synthèse ñu naan bu ñu ci téléphone seen na fi jóge nangam nangam sangam sangam mais yàlla deful loolu. yàlla deful yàlla deful loolu ah, am nañ yaakaar ni euh, ñun ñoo nekk ci kanam mm-hmm. euh, ba ba résultat définitif bu génn si ñooy nekk ci kanam incha allah li am solo nag mooy comme on le dit. écart yi mën na wàññeeku on tire les conséquences on va tirer on va les évaluations et pour tirer toutes les leçons. pour tirer fi ñu ci fi ci laaj maanaam est-ce que un peu du du waat un peu li nga xam ne mooy mooy mooy liggéey bi parce que bu ñu jëlee centrale syndicale c'est vrai que yéen a ngi ci public yéen ngi ci ci bi mais boo xoolee problème yi dafa mel ni ci privé bi la ëppee maintenant bu fekkee on a des syndicats autonomes qui viennent du public ñu ñëw li nga xam ne mooy vote bi donc est-ce que donc du andi yeneen problème par rapport euh, am travail public am ñu rek pour privé parce que centrale euh, confédération la donc euh, liggéeykat privé ñu ngi fi liggéeykat privé bi ñu ngi fi il est évident que euh, li nga xam ne moom nga wax léegi jëmale ko ci ci public bi boo xoolee at yi passé revendiqué nañu bëri quand même am nay avancé ñu am ci yokku salaire yi et cetera dans le secteur public xam ne aussi centrale yi porté nañ ko man de personnel moo diggéero xam naa ne moom te ñoo xam nañu loolu aussi ñefe naa ci bëri seen wet pour mu avancer te état bi aussi xam na ci dara donc mais euh, le privé si différent privé da ngay gis secteur buy dox am secteur bu doxul parce que comme je te li ma la wax léegi état benn patron la c'est l'état c'est le trésor public euh, naam c'est le ministère des finances c'est le c'est la fonction publique benn état état benn la waaye privé bi comme ni ma la ko waxee Euh, bokkuñu parce que da am ku am patron yu am doole entreprise yu dox am yu doxul waaw da nga gis Sonatel day dox par exemple ñu ne la beneen mi ngi dox waaye nga ne boo laajee benn société de de bu gën a euh, ah gardiennage ñu ne la non que ñun nangam xam nga nga jël bâtiment quelquefois ñu ne la doxuñ nga jël benn société ñu ne dox te travailleurs yëpp ci ñëw lañ bokk soo ne nañ yokk salaire bi ñël ne mënuñu ko parce que patron yi aussi da nga am seen syndicat bopp xam na état moom état la mais syndicat patron yi ni ñu nu amee syndicat noonu la patron yi amee syndicat aussi. ñu defaan seen intérêt. demee ba ñuy négocier négociation yi du demee du yom parce que ñoom dañuy waxtaan seen biir euh, ay mbëkkante seen biir ñu naan mën nañ dem ñu ne mënuñ ko def buñ ko def. parce que bu ngeen ko defee sangam sangam ñu naan bu ngeen defee bu ko defee sangam sangam ñu naan bu ngeen defee ne. tur ngeen consensus ci aspect yu bëri récemment ci wàllum SMIC beeg wàllum yu bëri ci wàllum salaire yeeg yooyu noonu SMIC mais bu xoolee ba tey y' a yoo xam ne. waaw xam nga euh, xam nga comme je am na loo xam ne lii du responsabilité centrale xam nga yoon la loi la lii la patron war a def patron bi su ko deful. war ngaa dem ci yoon jaral la ko parce que travailleur bi parce que du central mooy koy defal loolu lépp sama patron war na ma fay cinquante mille wala ma fay cinquante sept mille fay ma ko mi ngi may fay quarante mille te yoon quarante mille la mais nga bind ko ne ko man kat cinquante sept mille nga ma waroon fay fay ma fayloo ma ko. mais doo toog di seetaan. du tout parce que boo ko defee yaa tooñ sa bopp kenn tooñu la loolu c'est un minimum que nit yi war ko def ba pare ànd gëm yàlla. parce que mënuloo aussi ñu ñu lay teg loo xam ne lii yoon waxu ko keneen waxu ko nga koy nangu teg ko sa bopp donc loolu dafa war a nekk loolu moo tax ma ne su fekkee ni liggéeykat bi gis na ni teg nañ ko lu mu teg bu xamul mu laajte buñ ko laajtee daañ ko teg ci yoon daañ ko wax lu war a def mais am na loo xam ne lii responsabilité individuelle la d'abord avant que moom il faut boo nangul ma bind sa patron parce que nangu bëgguloo ci feeñ bugguloo sa nangam wala bëgguloo ci takk mais ko kenn mënu ci dara fois nag bu fekkee ni groupe ngeen mën nañ jël responsabilité assumer ko devant euh, le devant les tribunaux wala devant l' inspecteur du travail quelquefois doo dem tribunal inspecteur rek mooy woo mu wax la. am na aussi ay patron yoo xam ne xamuñu am na ay patron yoo aussi nekk nañ patron di utiliser ni waaye quelquefois sax xamuñ lu règlement di wax am na aussi bëri na ci. non c' est pas c' est à dire que d' abord l' inspecteur ne peut être partout contrôleur du inspecteurs yi ñu administration travail moyen demewul noonu tey suñu sañoon fépp foo xam ne fi koñ la ñu def ay contrôleur dem di liggéey di këru liggéeykat yi ñu fay dem di xam lu xew mais suñ demee contrôler tey bala ñuy contrôler parce que moyen les moyens ne suivent pas les moyens de l'administration sont sont sont assez limités on le sait aussi bien des moyens matériels que des moyens que des moyens humains donc loolu ci la bokk donc ah ñu yaakaar ni loolu aussi war nañ ko mën a corriger ma toujours dañ naan ministère du travail nañ ko yokkal lay moyens beneen bi mooy liggéeykat bi syndicat bi mu bokk aussi am nañ ci responsabilité mais liggéeykat bi aussi su ko dara dalee moom moo koy mën a wax ñu ne ko ah da ngay bind waaw non non da ngay yaa ngi minimum acte bu tuuti la rek man kat si patron xam mën nga bind sa patron mankat sama solde bi nangam la woon waaye nangam nga ma am na patron xëy na bu ko seen waaye waxi ñu dàq ko xëy na am na je ne pas mais c' est un minimum qu'on doit faire euh, y a aussi mais yàlla nañ gëm yàlla yàlla moo ñu yor kenn yoruñu bu fekkee da ngay nangu ñu sa nga liggéey ko ñàkk ñu war la fay ñu tex ko te teguñ ko fenn nga yore la ma fay la fay la bu fekkee defaloo loolu nag nga ñëw boo ko ñëwee ci ñun aussi ñun mën nañ la yoon mën nañ mën nañ jël responsabilité mais il faut nga feeñ ci parce que mënu ma ne ah, diwkat li nga ko jox kii te du ma tudd turam wala du ma fu bu nekk wala du ma saisir patron parce que boo bindee patron mën a de quel droit nga may saisir man xaw ma la mosuma séq yu affaire yooyu foog nga am foofu sukkandiku te bu fekkee fi ngay sukkandikoo bu ñëwee suba ne ma waxuma la ko nag mosuma ko wax wala mos parce que loolu yëpp dañ koy dañuy jànkoorteel lu mel noonu moo tax ñuy jël ay ay ay ay garde fu parce que parfois di nga dem nit ki nga jël parti mu dem ba ci biir ne non man waxuma koon sax mu ñëw fii day arrivé. dafay am kon boog travail bi am na am na ci am na ci wàll bu bëri et dañuy gis actuellement dafa am benn tendance boo xam ne moom moo am au Sénégal donc ku nekk dafay am foofu far donc te dañu gis ne aussi am na yenn syndicats yoo xam ne vraiment dañuy fare ci li nga xam ne mooy langue bi soit ñu fare ci kujje gi soit ñu fare ci li nga xam ne. cest à maanaam dañuy far soit ci bi wala ñu far li nga xam mooy opposition bi. Hmm. donc loolu tamit est-ce que du gangréner un peu nga xam ne mooy le syndicalisme liggéey bi nga xam ne moom ngeen waroon def c'est-à-dire être près des travailleurs vraiment di seen droit di leen di leen aider ci lu bëri bëri. waa xam nga boo jëlee loolu syndicat politique yàgg na am ah. yàgg na am boo jëlee CNTS bi CNTS bu njëkk participation responsable non affilié au parti socialiste. après ñu dindi ko congrès bi nga fal man da dindi loolu lépp. Eh, ñu nekk syndicat autonome euh, démocratique et syndicat indépendant ko nekkatuñ ci loolu ñun. waaw parce que sart yi nga xam ne moom la ñu fale moom la ñuy doxale euh, beneen bi mooy liggéeykat yi en tant que centrale centrale bi ñu bokk par parti yëpp a ngi ci biir parti yëpp a nga ci biir suñu central ñëpp waaw mais lu parti li ñu jiital suñu moo door daal liggéeykat yi ñoo ñu koy jox waaw li nga xam ne moo leen soxal loolu la ñuy wax ñu dox ci maintenant nag euh, citoyen bu nekk nga nekk syndicaliste bañ nekk seen am nga liberté bokk ci parti bu la neex aussi. mais lu mu non ça dépend mënoo transférer les problèmes de parti politique dans notre dans l' organisation boobu boo ko defee xëy na travail jël seen responsabilité mënuloo forcer nit ñi jëm ci lii wala jëm ci lële je pense loolu euh, am na organisation yoo xëy na xëy na seen biir mun a mais man de li ma gëm li mu gis mooy en tout cas citoyen bu ne am nga droit bokk ci parti mën nga def sa politique. fu mu la neexee ak nu mu la neexee supporter ku la neex mais li nga xam ne daal moo ñu boole nañ ko respecté mooy sart yu mu tëral te nga adhéré ci. ñu ngi ñu xaar li nga xam ne mooy les élections dé définitives EG tey jii nii bu ñu élections yi ñëwee donc dinañ xaaraat cinq balaa ñuy defaat yeneen yeneen élection donc bu ñu defee élections yi yan enjeu yan combat la ñuy gën a mën a porter donc pour législature boobu bi ni meer bi romb. bon man daal li ma jàpp ni def nañ élection représentativité yi. mais problème yi ñu ngi fi parce que élection yi ça ne veut pas que problème day dem moo du tout problème dañ gën a tar njëg yaa ngi gën a yokk liggéeykat yi ñu ngi gën a sonn euh, les prix augmentent donc pouvoir d'achat bi gën a faible fiscalité bi mu ngi fi n'est-ce pas boo xoolee fiscalité réforme fiscale ñu ngi ko doon wax yaakaar ni xëy na daañu ci jëm parce que aussi ñun dañ soxla ñu réforme fiscalité bi encore. ci combat yooyu lañ ci combat yooyu daañu dem daal. Euh, précarité bi maanaam l'emploi des jeunes euh, aussi du problème politique rek du problème gouvernement ñun aussi am nañ ci sas dégg nga loolu aussi war nañ ko xool comment faire pour que la protection sociale maanaam nit ñi mën a faju parce que tey ku ci nekk muy yow muy man muy keneen am ngay mbokk yoo xam ne jàppuñu fenn te bu ñu fay son bu ñu feebaree te duñ faju kenn amul droit nit ki malade nga amul du mu fajoo wala boo dee ñu duñ la jël yëpp dañ koy dañ koy bëre pour que aussi mu mën a mën a yaatu ñu def aussi que trois liggéeykat ñu respecte biir kër liggéeykaay yi ni ngay wax nit ki naan fay waaye li ñu wax sax du ko respecté fu ñu ko teg loolu foog ñu liggéey ci euh, collectivement euh, gouvernement inspection du travail syndicat yi sensibiliser informer euh, jël aussi ay ndam ay ay ay daan ci ñi nga xam ne duñ ko def nan lañ def aussi pour kër liggéeykaay yi nga xam ne kër liggéeykaay yi nga ba tey ji dañuy bañ ñu tànn seen ay njiit bañ am syndicat boo fa dee syndicat ñu dàq la am na ci ñun ci combat yi foog ñu régler yo dafa bëri am donc dafa nekk yoo xam ne euh, problème yi ñu ngi fi am na am na ñoom ne décisionnaire yi ñi xam ne ñu ngi seen kii seen cas c'est injuste li xam parce que man au début boo nekkul fonctionnaire doo ko xam mais ba ma commencé gis déglu leen lire seen ay documents accompagner leen aussi bañ def seen journée d'étude ma xam la xam ne lii c'est un c'est un c'est waaye une injustice boo xam ne war nañ ko war nañ ko mën a corriger te ay solution mën na am bu waxtaan laloo ñu ngi déglu comprendre li ñu li ñuy wax lan la donc euh, voilà système de rémunération bi ñi am lii ñële duñu am laa EPS yi ñu ngi fii as am yaakaar aussi les collectivités territoriales seen revendication war na leen fay seen xaalis ñeneen nag ñe revendication daal mi ngi fi ça ne veut pas dire li amoon daal li élection yi du moom du ça ne veut pas dire que élection euh, revendication jeex non non non au contraire li ma la wax yëpp priorité la waaw honnêtement li ma la ci wax yëpp priorité priorité la am nañu yaakaar ne bu ñu yàlla dimbalee ba ñu génn ci xam nu muy demee mais en tout cas daañu ci taxaw incha allah rabbi jërëjëf ñun leen fay xanaa gërëm leen sant leen rek encore seen direction ci Euh, taam ngeen ñu may waxtaan ak ni di fekkee jégaloo si bu fekkee ni ci wax ji am na yoo xam ne euh, am na ko ci gis boppam en tout cas pas pour dire quoi que ce soit pour blesser mais dañu war a wax rek li ñu war a wax mais beneen bi mooy souhaiter leen aussi une bonne heureuse année parce que xëy na at mi jeex na yal na yàlla may ñu dugg ci at mu bees mi jàmm ak salaam wàccee jàmm biir Sénégal wàccee jàmm ci àdduna bi yëpp fexe daal ba nekk réewu jàmm réewu naataange ñu liggéey am surtout pour xale yi di ñaan yàlla aussi ñuy dem bëkkam yi taxaw bañ a dem xam ni Sénégal fi tedde mën nañ fi am di ñu sutur ci dënk suñu bopp yàlla yàlla moo yor yëpp. yàlla moo yàlla moo yor ñëpp. merci beaucoup SG tey ñu nekkoon ak ki xam ne mooy Modou Guiro nga xam ne mooy le secrétaire général de la CNTS Confédération nationale des travailleurs du Sénégal tey moom la ñu daan loon donc waxtaan ak moom sur. les élections de représentativité mais aussi les enjeux yi nga xam ne élections yi incha allah dina ko animer aussi les combats ak les revendications yoo xam ne vraiment bëgg ngeen ko porter dans après après les élections donc ñu ngi lay jaajëfal remercier équipe technique bi nga xam ne moom la ñu àndaloon ci réalisation bi Amadou Ndakebe Khady la ñu moo nekkoon ci li nga xam ne mooy montage donc ñu ngi remercier ñëpp donc di souhaiter aussi nos téléspectateurs ñu ngi leen leen jox dig daje incha beneen yoon ñu ñëwaat ak seen émission avocat sur la 7TV merci beaucoup